aleykum chers ami internet de la Saint-Louis TV maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte encore une fois di partager ak yéen seen émission noonu ko waxtaanee tey nag ma am benn invité bu spécial ñu koy wax Déthié seen dama koy bàyyi juste mu mu nuyonteeg yéen maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum euh, waaleykum salaam soxna Anna waaw di am mbégte ak kontaante tamit di teew si sa émission nan ko waxtaanee waaw nu fas yéene waxtaanee lépp loo xamante ne rek dafa jëm ci wàllu sunu dëkk bi di Ndar incha allah. di nuyu waaw ñëpp ñi nga xam ñu ngi koy seetaan. Euh, Déthié est-ce que mën nga mën nga fàttaliwaat euh, gars yi kan mooy Déthié seen exactement ak si yan domaine ngay ngay faral di yëngu. waaw Déthié seen day si pour ñi ko xamul benn doomu Ndar la bu juddoo Guet Ndar waaw nekk maître nageur sauveteur nekk commerçant euh, nekk di liggéey tamit ci marine ànd ak marine yi di di surveiller suñu côté. pour jàppale sunu mbokku mool ci wàllu sécurité waaw am naa yaakaar ni loolu mooy li nga xam ni moom moonu moonu moom la ñu boot ci wàllu liggéey. waaw ci ci wàllu boobu la ñuy ñëwaat euh, may fàttaliwaat mbokk yi tamit que ni euh, nekk nga nappkat pendant des années avant ngay yëngu ci domaine yooyu noonu euh, moo tax may am sañ-sañu di la laaj ci benn wàll boo xamante ni dafa dafa dafa dafa sonal population bi fii. bu muy bël bi ñu gis ni chaque année day day rey ay ay pêcheurs yu bëri des dizaines de pêcheurs ay à chaque fois gouvernement day dig population bi que ni dina ci indi ay soppite dina ko defaree tout ça ba nii nii bu ma rek récemment ñu ñu def une commission pour defar ko yéen en tant que doomu doomu langue de Barbarie lan moo ciy seen xalaat ak est-ce que am ngeen yaakaar ni cette fois-ci euh, ça sera la bonne. waaw bol bi mom la mom la ñuy wax lambu bi mom bokku na ci li nga xamante ni si daanaka moo gàllankoor li nga xamante mom modi moo Saint-Louis ndax yoon la bo xamante kenn du nappee si biir bël bi li coow li di bari li fa moole di dee du nappukaay yoon la boo xamante ni gaal yi dañ fay jaar rek pour génn mu nekk yoon boo xamante ni dafa bari lu ko lu tax mu nekk danger ñeenti danger dafa am benn danger bi mooy suuf si dafa nekk ci kaw ba pare di dund comme ruy ni ñu koy toggee beneen danger bi mooy dafa nekk foo xamante ni si dafa sore tey bu bu bu kii amee bu accident amee pour pour euh, secours yegg fa day jafe beneen danger bi mooy day yëngu ndax ñaari ndox la yoo xam te dañuy daje. waaw beneen danger bi mooy ñu fay jaar guddi ba pare te ak bu aayee kon loolu dafa war a nekk lu jiitu si li ñu war a def maanaam jël sunu matukaay defar ka defar defar bu jaar yoon mais nag comme dégg nañ ci wala tamit gis nañu lu leer ni ñoom ñu ngi koy bëgg draguer maanaam waxuñu defar ak draguer bokk draguer mooy gas ka ba mu xóot kon dañuy ñaan rek yàlla euh, may leen nu yeggale seen liggéey boobu noonu ba xamante ni gaal yi daan fa mën a jaar si jàmm salaam am nañ si njort bu rafet. si si jamono bi ñu tollu te ndortu bobu yalla bu yaakar tass dal wax nga ko wax nga ko sa biir wax da ngay yëngu aussi si walu sécurité marine ñu gis ni euh, géej gi bari danger trop si si côté nap gi même bu dul bël bi au delà sax si biir géej bi sax mooy dañ fay faral di jankontel ay jafe-jafe yu doy war yeen en tant que ñu yëngu si walu sécurité marine lan ban plus ngeen leen di apporter ba nga xamante accident yoy tay dina wàññeeku bu baax. waaw ki si côté boobu en tant que maître nageur sauveteur et surveillant de baignade. Nous convoqué nous mission bu checkpoint mission checkpoint dafa une mission boo contrôler les yi sans sol gilet avons danger dafa danger bi Amna lenn gilet de sauvetage kon duñ def sensibiliser ndax mission bi mission sensibiliser la sensibiliser sunu frères pour nous sol gilet de sauvetage ci moment bi nga xam Nous avons ñu ngi ñu ngi jaar ci am ñoom boo leen nee solo gilet dañ naa la dañuy baa bi yegg bël ba soo sol mais gilet de sauvetage euh il faut nga bo xasse ba dugg ci ndox 1 mètre war na fekk gilet muy dex muy géej war na fekk gilet de sauvetage bi nek ba pare nga tak bu mu deug ndax gilet boko takul mom rek man la lor ñun lool moy sunu mission ak xol bo xam tamit gaal yi am nañu kayit comme niko ko di amé xol tax bo xam gaal dekk dëkk ba nuy jëm am nañu licence ba leen fay yóbbu wa loolu tamit dafa bok ci sunu liguey chaque jour nuy dugg ci ndox mi di len contrôler si si si wàll boobu ñuy ñëwaat li nga li nga daanee léegi muy licence licence de pêche dañu gis ne aussi ay chaque chaque année day jur ay problèmes yu bëri yu bëri dem na si ba si moo li dañuy nekk di di di xeex di di di sànni et tout ça pour pour jot si wala bu wala pour jot si ak conditions yi nga xamante ni moo leen di gënal tey ana ban problème moo si laxasu bay jur yooyu noonu yëpp. waaw coow bare na si coow bare si damay jëkk indi li nga xamante ne bu amoon mën na ko mooy tey sunu géej dafa dafa manqué jën. bi tax ñu koy wuti feneen foo xamante ne dañuy soxla licence pour napp fa amaan na lanu ma la am foofu ba tax nu dem di ko wuti ba amoon fii amaan na duñ sax soxla licence kon bu demee ba soxla licence ba di si coow rek am na lu manqué fii lu nu amul benn bu nu jëlee ay bato yoo xamante ni si dañuy jóge bitim réew benn bato bu teeree bu jàppee jën camion jën yi ngay gis nii si jàmbalaay bi mën na si yeb vin benn gaalu mbaal xëy na benn camion la mën a yeb fii wala ñaar mais bato mën na ya vingt léegi bato yooyu bu ñu nappee jën bi duñ ko jaay Sénégal duñ ko teer Sénégal duñ ko yóbbu si yeneeni réew ñun amuñu si dara lu dul li nga xamante ne ñoom la ñu seq ak gouvernement bi te du dellu soir si napp gi ndax bu fekkoon dellu seen si napp gi kon sen louis tey am na chambre froide ba kenn du tuur yaa booy mais loolu yëpp amul amul bi moo waral comme amoo ko fii nga ni dégg naa ko ci réew sàngam e-, exemple Mauritanie léegi da ngay obligé daw dem Mauritanie pour pour pour wuti ko léegi nag Mauritanie dafa teg ay chartam ni nii laa leen koy joxe ñu nit yàkkamti bëgg jël kayit tax na nan nu tegal charte yan nu tegal nu nangu ko te buñ demee duñ ko appliqué loolu tamit day jur coow suñuy mbokk mool yi dëgg la mais tamit buñ la tegalee charte respecté woo charte yi ñoomit seen boo seen intérêt la ñuy xool réew beneen réew la ñu ne suñu intérêt la ñuy xool looloo waral te suñuy intérêt jubóowuñ ci à 100 pour cent. mais mais est ce que est ce que charte yi ngay wax ni ñoom balaa ñuy jël papier yi di ko signé est ce que ñuy dem di doxe ji négociation yooyu dina leen expliquer carrément que ni licence bi lii la leen may lii la leen mayul jën bii la leen may ngeen napp ko lii la est ce que charte yooyu dina leen ko leeralal ba pare. amul benn mool buy dem géej te xamoo charte yi nekk ci kii bi gars yi dañuy wax naan jàngunu duñu liir kayit yi amul mais jàngunu duñu liir kayit yi loolu du du maanaam du loolu mooy wax ju sew ji maanaam nekkuñu nekkuñu foofu ndax kenn ku nekk am nga ku la mën a liiral ku tax nga wax te bari na capitaine yoo xamante ni seen ay doom ñoo ngi génn ci école yi ñëw gérer leen seen seen matériel kon xam nañu kayit li si ne xëy na yàkkamti jot kayit ak yàkkamti am jën yàkkamti am xaalis moo leen di jàpp ba ñu yàkkamti dem nappi ba jël kayit boo xamante ni ñaari xal la doon su ñoom loolu mooy jafe-jafe te ñaari yooyu buñ ko saafara woon defe naa dootu am jafe-jafe. ñu gis aussi beneen beneen phénomène muy quai de pêche euh, l'anglais l'anglais brave laay wax sax am na am na quai de am na ay quai de ak port mais gisuñu mën nañ ni gisuñu njariñam population bi gisuñu njariñam te tey fi tey peut-être am na aménagement bu mu waroon am euh, jeunes yi dinañ si dinañ si am accès dinañ si mën liggéey population bi gis si seen bopp bu baax léegi yow en tant que en tant que jeune si côté boobu noonu en tant que euh, doomu ndar la ban ban gis-gis nga si am ak yenn solution nga xalaat ni buñ ko si indee dina dina am soppite si loolu. waaw ndar amul quai de pêche amu fi amul quai de pêche ndar xam lu mu am ay nan nga def fii jekk na. te fi nga def yëpp jekkul ndax port la am te port bi màggat na boo déggee ma ne amul quai de benn noo ngi ko defoon euh, jaam noo ngi ko defoon chaumière ban demee ba xam ne mënul nekk nu indi ko fii si jaamalaay bi nu tuddee ko jaam nu indi ko fii si taatu armeer yi ñëpp xam na ni armeer yi xat na xat goo xamante ne mënuñu fexe ba mu nekk quai de pêche lu ne nu ko cee dégg coow li ciy am ñiy dem tey yàlla bu fi jëlee nit nu war ko yóbbu coow yi am diggante boobu ñi ñiy dem armée yi dañuy am problème c'est parce que fi nu def affaire yi baaxul ba nu def gox mbaaj gaal mënu fa teer c'est parce que géej ga baaxul kon ba léegi amagunu quai de ay place la nu am yoo xam te ne dañ ko def quai de nag am nan ko waaye problème port bi mooy defaruñu port bi port bi dafa war a nekk port bu nu defaraat ba mu mucc ay ba nga xamante ni gaal yëpp dinañ fa mën a teer kon defe naa ni ndar amul chambre froide amul quai bu baax amul port bu kon yooyu yëpp def naa ni bokk na ci ni gàllankoor napp gi ba jur jafe-jafe bi. te bu ñu xoolee euh, pêche ci Saint-Louis li muy générer si économie euh, yooyu noonu yëpp tey jii waroon na am solution. waaw ma xam nga yi nga tuddee euh, quai man ñoom laa tuddee poste xam nga tey exemple da gis benn entreprise bu mag waaye da gis mu am benn si benn koñ benn cantine boo xamante ni moom moo ko représenté ñun ndar amuñu quai tey boo demee ay Dakar ak yooyu am na ay quai yu mag mais ñun ndar ay poste la am. sunu poste yooyu lu muy ndaw ndaw ndaw ndaw moo yore économie Saint-Louis kon poste yooyu tey bu nekkoon entreprise bu mag bu nekkoon lu nu jëmmal kon ñun ndar est-ce que daan soxla sax ñuy dem Espagne di clandestin ji du ko soxla c'est dafa bari ay bunt yu nu mën ubbi yoo xam te nit ñi mën nañ daw dugg fa te duñu jaar ci gaal yi duñu jaar ci avion yi fii la ñuy toog voilà. ñu mu ñëwaat ci beneen fay mooy mooy avancé de la mer population bi déplacé leen jëlee leen si gox yóbbuwaat leen feneen yoo xamante du dundin du dundin tey jii en tant que en tant que doomu doomu doomu guet ban ban ban gis-gis nga si am yow. waaw ñun kay dañu wolofu bu yàgg dañu nu dem xaar yàlla dañu fal président woteel ka fal ay maire nu waroon nu defal nu ne déedéet ñun mënatul leen defar toog leen foofu ngeen xaar yàlla ñun ñu dem tuddee ko xaar yàlla toog fa di xaar yàlla. te am na yaakaar ni yàlla dafa war am ñu mu yebal ñi mu yebal mooy suñuy gouvernement kon ñun doonu waroon wax nanu ginnaaw yàlla nanu xaar suñuy gouvernement léegi nag comme xaar yàlla loon wax kon ñoom bu neexee man nan nu seetaan ñun ñu toog di xaar yàlla mais yàlla mi nga xamante ne ñun moom la ñuy xaar yàlla nanu yàlla dimbali si coono nga xamante ni ñoo ngi koy daj foofu avance avancé mais li indi géej gi ba suñu kaw xamoon nañ ko bu yàgg yàgg yàgg xar moo xamante ni exemple dafa jël dafa jël élan di mbëkke nga naan xar meere day mbëkke mi ngey ñëw tok tok tok tok bamu yes nga bëkk daw mu daj la bëkk nga ni lutax mu mbëkk ma ya ko def sa bop sama ma bo dégg wax ji moy togon non ay jamono nuni fi ak 20 ans fi ak 30 ans dina ñew geej gi di ñew di ñew di ñew ba yex bobu boobu amoon ay njiit njiit yoy sétan nañu ba ki mujj ñew momit bi mu ñewé di di def lu bon non ka li ngay def baaxul mu continuer di ka def lolu gis nga la mu mujjé am nañu yaakaar ni ñom si seen wax yu mujj nu ni amaat nañu projet nu xaraat rek ba xam doon du doonaat ay nax Nous sommes yalla les mais yalla nañu ko parce que vous ko moy li gën si askan bi déplacé askan bi si quartier bo xamanteni y nga am projets yo fa def projet bu nek passé na milliard kooku ay nax la nañ défar dig bi défaral quartier bi comme nous ñu faire assainissement bu cher si biir quartier bi. Euh, ñu ñu ñu gis aussi avancer de la mer bi dafa affecté dafa affecté école yi dafa ñaari école la amone école Cheikh Touré ak bi école existé Euh, te kenn gisul au bi amoon na ñu si doon wax population bi ñu si doon wax et tout ça pour ñu pour re réaménager ko pour euh, xale yi mën a jàngi tey ji yow am na lan mooy si parce que tamit quartier boo xamante ne amul amul éducation amul jàng te parents yi ñenn ñi duñu duñu sawara a bàyyi seen doom yi ñuy quitter foofu di dem si ville bi di jàngi jàngi bi mën na fa suuxee mën na fa jur ay loraange yu bëri tey ana lan mooy si sa xalaat si loolu. waaw man foofu damay xaw a yërëm sunu bopp tuuti ndax quartier boo xamante ni dañ daan toog ay jamono naan jàngunu si bobu jamono bi gaay les ñun nekkuñu fi gaay nekk ñun ñu ngi ñu ngi créer école chaque jour fi meilleur élève di chaque jour ñoo daan ñoo daan ëpp daan ëpp ñi am euh, euh, résultat yu si les jamono baat bi ñun ñu association des anciens élèves de l'école Cheikh Touré di di bay bu résultat bag génnee wala béykat nga gis ni ñoom dañ si am résultat yu baax na xëy suba li ñuy wax avance euh, li avancé maire bi ñëw yàq suñu école benn école bi jëkkoon yàqu avant géej gi di ñëw lu ne daj nañ si pour nu defar ka te boobu géej yàqu ko woon école boobu dafa daanu woon daanu boppam mënuñu ko woon defar kon bu nee ma géej gi daa yegg si mënuñu ko defar kon tappale la sa parce lu tax mu nekk ay tappale école bu jëkk ba géej daaneelu ko dafa woon boppam lu ne daj nañ ko fu ne dugg nañ fa pour nu defar ko defaruñu ko kon xëy na taafantu la nii rek pour mën a ñëw ni géej gi moo tax mënatuñ ko defar naa nga maanaam kon ñun xam nañ lépp parce que dañ fa am fu nu teg te foofu nekkuñu fa xam na nañ lépp léegi nag yàlla def na nattu am na ñenn ñi jël na nañu seen ay élèves yóbbu leen ci biir ville bi yóbbu leen soor ku nekk tas nga mais loolu dafay am lu muy wàññi ndax yenn xale yi chaque jour seen parent transport xam nga mooy loolu. tàmm koo xam te ne tàmm moo dem fu sore da nga toogoon école nekk sa wet ngay jàng di dugg sa kër nu lay yor nga dem ba mujj gi man mii di wax ak yow sunu kër gi nekk Balakos fi nu fi nu tox si Balakos. Mm-hmm. boo demee di nga fekk cinq xale yoo xamante ni gendar lan dëkk dañuy jànge foofu sunu kër dañuy añe ba guddi nu jël si leen benn taxi jël seen yaay day fay loolu. Mm-hmm. xaalis boobu noonu bokk na si li nga xamante ni da ngay yokk coono si si si si fii jamono toll mm-hmm. kon laay yi amul ndax bu élection jotee seen bureau yi nga xamante ne moo nekkoon sa école ba pour nu voté leen daana fexe ba créer ko si biir Guet Ndar ba defaraat bureau yi ba ñit dem voté ndax ñoom nu am ndam après toogaat seetaan nu ñun suñu école di daanu ñun duñu am fu nu jàngi moo tax du lépp du lépp la nu mën a wax mais ñoom xam nañ bu baax ni euh, tayaatoo dafa am daal ak seetaan mais yàlla baax na mm-hmm. léegi damay damay ñëwaat ci beneen question question boo xamante ni sa euh, mën naa ne yow la concerné sax mooy mooy dama lay gis nga yëngu à chaque fois ci ay affaire audiovisuelle affaire vidéo documentaire clip et autres euh, am na sax sen groupe bu ñuy wax Daalu Ndar euh, tey jii Daalu Ndar lan mooy sen objectif parce que dañuy gis ni chaque weekend di ngeen di ngeen dugal ay ay ay ay euh, photo yoo xamante ni c'est pour publier pharmacie yoo xamante ni dañu monter garde muy social boo xamante ni koy def Ndar yëpp reconnaître que tey jii ana lan mooy sen sen objectif ban vision ngeen ngeen ngeen am si si walu. boobu. waaw Daalu Ndar boo ko déggee ay xale la yoo rek xool nañu ba xam ni seen dëkk am benn pàcc bu buñ ci war a bay si seen côté ñoom ndax kenn ku nekk si dëkk bi am na pàcc boo ci war a bay nu ni léegi dañuy créer dàllu ndar ci déggin boo déggee dàll mooy koo xamante ne dafa jug sol dàllam fas yéene dem bañ a toog toog moo amatul fenn toog léegi da nga war jug dem nu créer dàllu ndar lan jug dem fan génn nu ndar la ñu yem lu tax ndar c'est parce que bay si sa weewu tànk léegi la ñuy def ndar lan koy yemale lan boo solee dàll jëm ndar loo fay def nu ni dañuy si li ñu jot a xam ci li ñu jot a man si loolu la ñuy sukkandiku pour mën si jàppale askan bi nga xam te ne xamagun ko te mënagun ko maanaam si côté sensibiliser askan bi si lu bare sensibiliser ci wàllu euh, éducation comme ni nga ko waxee woon sànq sensibiliser si wàllu euh, naka la nit war a def ba mën a euh, dund ci dëkkam si si naka la mën a def tamit ba bokk ci si si si kiiwam loolu la a ñuy créer ay ay genre kili booy xool askan bi léegi lan la ñu bëgg di déglu ay ay théâtre la ñuy gën a bëgg seetaan ay clip la ñu bën gën a bëgg seeraan koo dem si téléphone am clip nga fay fekk wala théâtre kon ci biir foofu message mën nga fa jaarale pour ñenn ñi nga xam ne am na lu ñu xamul woon si àdduna nu xam ko looloo waral nu créer Dalu Ndar pour sensibiliser ba pare tamit pour aider nit ñi ci li nga xamante ne da jafe comme pharmacie Montegarde yi ngay wax nit ñi dañ daan dem ba si pharmacie liir lu dem ba mujj gi jamono jamono metti boo xool bi ñu koy créer dana toog tuuti corona dugg nga xam ni kon arrangé na woon nañu bari ñi nga xamante ni couvre-feu da daan am nga bëgg dem pharmacie xamoo ban pharmacie mënoo wër ci mbedd yi léegi da ngay toog xool sa téléphone gis ni pharmacie diw moom monte numéro téléphone baa ngi fi nga woote nu la garab am na nga ne dama bëgg boo bëggee nu libéré da ko a nga dem am na ñu fi nekk ci dëkk bi di libéré boo la woowee nu dem jëli la garab ba indi nga fay te doo génn sa kër loolu ci mission Daalu Ndar ci la bokkoon bare na bare na loo xam te ne waa Daalu Ndar dañ koy def daal euh, yàlla na yàlla na yàlla mootali yéene te euh, gën a ful objectif yi Euh, beneen bi moom dama lay laaj sa xalaat mu am benn fee boo xam dafa dellu si waat muy immigration clandestine amoon na ay jamono mais euh, si 2020 bi dafa ñëwaat ñëwaat ak doole ñu am benn euh, catégorie population bi nga xamante ni ràññeew xàmmeewuñu leen si woon muy mool yi ñoom peut-être ñoo daan yóbbu gaal yi mais daawuñu sawaru comme dem bi seen dem ni mu mel période bi melu ko woon bu njëkk léegi dañu gis ni ñoom ñëpp dañuy dañuy màbb dem lan moo waral loolu seen géej bi moo dee wala qu'est-ce qui qu'est-ce qui waaw euh, li nga li li nga xamante ne moom moo ko delloo xam nga fekkoon ne ay mool rek kay dem sax nu ni kon géej gi moom moo am problème mais waa waa Saalum waa Bawal waa Kajoor ñëpp dajaloo nañ dem soo songi géej ñoo xam te mas nu xam géej c'est parce que boo demee si tool ya nun la euh, euh, mbay mi doxatul nga dem si sàmm nun la sàmm doxatul foo mënti dem danaa la foofu doxatul ñooñu ñëpp lan moo tax c'est parce que dañuy liggéey dañuy bay ba dee ñuy sàmm di sàmm ba dee ñiy napp di napp ba dee waaye ñi war a organiser loolu ba nga xamante ni ña sa nekk daanu am daan si yëg seen bopp noo sàggane seen wàll jeunes ñu ngi liggéey comme yéen ngeen koy defee yor seen caméra dem topp naaj bu tàng mi ñeneen ñu koy def feneen ñeneen ñu koy def feneen mais affaire lu ngeen ciy gañe bu yàggee da ngeen di maar bu ngeen maaree ni xaro comme am na benn dëkk boo xamante ni fii boo demee loo def nu fay la da ngay jël gaal yi dem buñ ko jàppee xaru su fekkee nee lépp yéene la booy julli te yéene woo ko sax julli woo kon bu nu nax xam na am nañu xam-xam nit ki ki nag ki ni man damay dem Barça wala Barsaax kooku man yàlla yàllaa xam damay maanu ci ay mbiram mais ki ni damay dem ngir dimbali samay waajur kooku mënoo ko def xarukat te damay dégg souvent ñu ni jiite ñi nga xamante ne ñoom dañ leen jiital ñoom ñoom ñooy wax kàddu yoo xamante ne si ñun ñun ñun waruñu ko ñun sax ñemewuñu ko wax ñoom noo war a rafetal seen kàddu xool seen kàllaama ni ñu koy defee ba xam ba ba mën a convaincre jeunes yi nit ki mën nga ko convaincre ci wax ju neex ba mu toog mais nit kenn du ko convaincre ci doole boy xol réew mi looloo fi am boy dañ leen jema convaincre ci doole jël ay ay ay bato di leen dakh ñuy xiiri xala gal gaa mbeuk bato bo mbeuk enquête bi leerul yoy dafa waral leer gis ngeen nit population dafa bëgg lu leer dafa bëgg lu set loolu bu nu ko joxul après da fay jurat yi nga fi am ni rek ay lu nekk fi lu nekk xew clandestin du rek du rek du rek ci gal yi lañuy jaar désert bi mo yes bari na lu nekk gis nga nit déggoon nga fi ay nit di tànte ay pneu avion di fi dugg

parce que c'est la première fois ma invité nit mu mu mu jël cadeau jox ma ko ni ma sol ko man tamit ma sol sama boss mais bi nga ma ko joxee dama si gis ñu bind si nekkuma foofu muy sa slogan euh nekkuma fofu moy lan exactement fo né yow nekkoo fi fo nek pour man niveau bobu du niveau bi nga xam tan mom moom wara yor pour mën dakk fas bi pour mën a rawante comme ñun fas la yor yor nu avion comme gaay mais bu ñu yoré fas ba pare di di di di dóorante caravace du ñu sore dañ war dóor fas bi fas bi daw nu mën raw bu mujj gi nu wacc gis auto daw gis avion yek. pour man noonu la war a demee looloo tax ma ne nekkuma foofu nekkuma fi ay tax may wax nekkuma si di gaaral benn politicien nekkuma di gaaral benn sama benn copain boo xamante ni dafa am xaalis wala mu ñàkk xaalis nekkuma di wut ay noon naan sama noon yi pour man yooyu dafa dafa dafa weesu ko nekkuma foofu moo tax nekkuma foofu yow dafay bañ nga nekk foofu moo ma jox la. nekkuma foofu waa Saint-Louis TV tamit nekkuñu foofu léegi léegi yow yan <laughs> ban yan conseil ngay jox ngay jox suñu mbokku nappkat yi. bi may lancé gouvernement bi.

maa ngi lay jaajëfal bu baax si di la kontaane si émission bi macha allah leer euh, tegtal yi leeroon na trop dama lay bàyyi juste nga tàggatoo ak mbokk waaw di am mbégte ak kontaante ci yow di am mbégte ak kontaante ci waa Ndar ak waa Sénégal ak waa Afrique di ñaan jàmm am ci réew mi di ñaan xol yi sedd ba pare nit ñi nekk ci waar wi daal te bañ a nekk fii na ñëpp nekk ci kaw quoi na ñëpp yéeg waaw bu nu nekk foofu daal Euh, en merci beaucoup si si si nangu bi nga nangu partager ak ñun émission bi tey euh, mbokk yi li ngeen leen indiloon tay seen émission nan ko waxtane ma leen di jox dig dajé du yag dara seen benen numéro émission nan ko waxtane inshallah